tey si meer bi di Pape Diop maire commune Est moo ñu santoon tey ñu def un programme par rapport ak màggal gi ñëw lépp la nga xam ne ñu ngi nekk ci la voie nationale 3 ñu dégagé ko ba nit ñi nga xam ne li ñuy dem mën a dem ci jàmm jëlu ci jàmm li ñuy dem ne defuñu dara pour gën a yaatal yoon wi pour embouteillage yi yàgg di am pour yooyu yëpp mën ba mën fii ak ñu màggal yi mën ko fee dindi donc loolu la te avant ñu koy def képp ka nga xam ne concerné la dem nañ si yow waxtaan ak yow jox la sommation waxtaan ni la kat li ñu tax a jóg lii la te nga ànd ci kon nag ñu ngi leen di ñaan balaa le 15 lañ leen waxoon pour li ñu leen wax pour ñu aligné bàyyi mbedd mi ñu def ko te nag képp nag ku nekk ci mbedd mi maire nee na suñu la ko fekkee ñu ngi yëkkati conformément ak par rapport ak jigéen ñi moom c'est clair waaw ñu ñëw ci bi waaw ñu ne ñu bëgg ngeen may ñu jàppale ñu ci dara dëgg la waaw ñu préparé opération désengorgement de la voie et j'avais dit que tant que je pousse parce que fi ngeen nekk bokk na ci champ bi ci bëri na kër gi moom mooy arrêté xam nga lu ñu war a def xame nañ la jox la wax la tey bon tey ñoo leen fekk benn situation taxaw di yàq li ci yàlla amul amul amul waaw